Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Si vous gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàtte la cloche de notification bi de ngir bañ a tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. seen vagaar yi neex na tey déglu naa yëpp ah macha allah mais man de su ma doon joor wax dëgg damay baax ñaa ñu bokk benn pap benn góor di leen xam joor dafa war a bàyyi dem sëy may sax waaw maa joor yaayam jalam bi mu koy bëggal dégg nga ko nee ko dama koo bëggoon avant tout ñu koy kidnappé daf kaa bëggoon kon nag kooku soo moytuwul maa joor dina si ndax nee ko man dawuma dara maa ngi koy xaar ba ñetteel te maire bi xamantewul ne xamul ne woon kooku ak maajoor jot nañ am luñ seq xamante nan pour mu leer man su ma doon joor man damay bàyyi sëy ak si dëgg neexul dëgg yàlla cam parce que moom dafa bëgg naar parce que xam ne moom ni mu demee naar moo xamut ni mu demee mais moom père Birahim xam na ne kii baayam moo ko jur père Birahim xam na ne kii papaam moo ko jur moo tax mu yërëm naar moo tax mu bëgg naar te papaam dafa violé woon yaayam yaayu naar papaam dafa violé yaayu naar ci boppam ba mu am ca ñetti seex yi moom xam na ne moom naar ñoo bokk baay bokkuñu yaay mais ñoo bokk baay looloo tax yaayam dénkoon ko ko xam na ne sëfuur ba du mooy ko violé ko xam ne sëfuur papaam violé ko papaam ci boppam moo jëf-jëf ci moo tax mu bëgg naar ba yërëm ko mais naar xamul loolu. ñu ne man waxoon naa leen ko naa leen bu jur di am bébé Ibrahima mën na ko jur. wala kon papa Pa Ibrahima jur jur naar Diop waxoon naa fi loolu waaye nit ñi duñ bàyyi xel vocal yi passé yi loolu mooy problème bi waaye da si am solo lool vocal passé yi nga dégluwaat ku baax am na solo de barke yeneen bi te lu mu wax loolu rek soo xoolee ba ci biir dina am lu ca nekk dëgg billaay affaire bi tey mi ngi nii mi ngi leer nànk-nànk. parce que moom dafa bëgg naar parce que xam ne moom ni mu demee naar moo xamut ni mu demee. mais moom per Birahim xam na ne kii baayam moo ko jur père Birahim xam na ne kii papaam moo ko jur moo tax mu yërëm naar moo tax mu bëgg naar te papaam dafa violé woon yaayam yaayu naar papaam dafa violé yaayu naar ci boppam ba mu am ca ñetti seex yi moom xam na ne moom naar ñoo bokk baay bokkuñu yaay mais ñoo bokk baay looloo tax yaayam dénkoon ko ko xam na ne sufuur ba du mooy ko violé wu ko xam ne sëfooru papam violé ko papaam ci boppam moo jëf-jëf ci moo tax mu bëgg naar ba yërëm ko mais naar xamul loolu. yaa ma yaa moo gée film bi yéen tax wax lu mën a nekk yéen tamit film bi lan maa joor ay joor ñoom ñooy mujjee kay jeexal nañ wax dinaa yaam da koo jurul sax nag daal bu dee da jur sax. yaram yi duga ne mooy toog moom nga xaar te uti laneen wala maa jore kay góor salaam waa kër maa dellusiwaat leen leen di la jox seen wàccuwaay ba mu bari doole waa gis nga affaire daal mi ngi nii Assane daal ñu ngi koy ñaan yàlla li mu bëgg ci groupe bi yàlla na ko yàlla defal groupe daal ñu jàpp te daal ñaan yàlla mu dem ba kaw suñu njort waaw mu dem ba yóbbuñu foo xam si daal fooguñu ko woon moo tax gis nga if mbooloo daal lépp lu doon segg seggal ko daal ndax ñi ko xamee ñëpp a koy déglu daal il faut ñu awar la koy woon man loolu daal laa gis débat yi nice na trop pour dëgg fa yàlla noonu la fay demee nii Sénégal 4 bi daal ñu ngi leen ñaanal jàmm ak salaam daal tamit dafa leer barke yeneen bi salaamaaleykum adee si waat ay wa waa kër gi da ngeen a tëdd yéen moom teel ngeen a tëdd di <laughs> teel ngeen a tëdd di waaw waaw waaw waaw waaw comme ni ko ni ko sama mari si say weesu léegi waxee rek waaw Sénégal 4 TV moom dañ koy siiwu moom lu bari yenn saa yi waaw ci si lu doy waaw moom dañu tey dañ tey gis dañ ciy bàyyi xel waaw commentaire yi am na solo lool tamit waaw mais nii la waaw groupe moom dafa war a jëm ci kanam mais warut a na parce que tey groupe bi moom xawal naa fi defaa tuuti mais nag li ma fi bàyyi woon daanaka loolu la fekk fekkaat waaw commentaire yi bayiwul kii bayiwul waaye daal mel daal mooy loolu waaw te war ci mën a waxtaan waxtaan ci jaay nañ te daal xam ni bu ñu waxtaanee solution lay feeñ te moom noonu la fa mën a demee waaw waxtaan seetante xalaat waaw xam ne yàlla moo lu boole tamit waaw maa ngi siyaar ñëpp nag ñëpp ku fi jaare sa vocal jaare siyaar naa la jox la sa wàccuwaay di leen wax ne yéen tamit waaw noon la fay tëddee waaw te moom da ngeen a teel a tëdd moom xamul nu mu fa demee noonu waaw da ngeen a teel a tëdd trop waaw min wi rek ngeen ngeen kite yen ñëpp waaw maa ngi leen di bu baax di siyaar seen asan bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam waaw di leen wax ni di leen ñaanal ko jaam ak salaam daal yàlla defal nu ko gu nangu ci daal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw daa leen jëf ba suba. man daal xam naa Naar Diop neex na leen may jéem may dimbalaa wax Naar ba ko garab nga xam ne test bu du ko wax dafa lànk ba sa naaj ba i Naar Diop day fontoon nit ba leen ko foofu rek mu yaa xaañ ji rek door ko bëgg a moo baax si moom nañu son dimbale waaye xam nga ñoom simel yi ñett la ñett yu ak benn bu góor instant bi nag benn bu góor mooy problème nag bu góor bi instant bi kenn xamagu fu mu nekk waaw ok dafa war a ñëw nag ñu mën a xam ku mu doon ok. billaay walaay loolu moom dëgg la en tout cas daal xam naa ne moom père Birahim yi moom moom ñetti seex yi moom ñoo bokk benn baay bu leen jur yaama tamit ba tey mënuma gëm ne gar bi moo ko jur carrément boobu mënuma ko gëm ndax dafa am dafa dafa niróo ñoom ci dara ndax it ki fen na ëmm na ah. ta xam nga ni ëmbul yaayam mën naa fenn ne moom moo jur te jurut en tout cas daal moom jur bi moom leeraguma ndax naa jóob moom mane na côté bu ne yàgg joor rek ak maa joor waaye ya la sëy bu yàggu lay du neex yaa warul am tus yaa bakka foofu première saison moo yaay mu ñëw gañe lu ñu de wax rek mooy am mukk mënul nekk sax deuxième bi dañuy daanu force salaamaaleykum ma desuwaat di béggawaat bu baax di bëggewaat ñëpp bu baax a baax xam nga naaj yom moom moom moom moom moom il est ndaxte bi ko gaami ne nañ def test dafa bañ xam nga ni naax yaamam moom doom bu léewul la maanaam tey yaayam da doon taxawaal ba ko fi mais naaj yom day tànn si ku jàpp sa la situation situation moo gën a baax rek mu génn la ko mais moom xam moom moom naa jóg ci boppam te xamul kuy papa day tànn day wax noonu rek comme li dal yaay joo mu mën koo leer ni ko gàmmee la jur mooy sa papa moom mun ko mun moom amu ci lu leer noonu loolu moo tax moom ñu moom day dute rek waaw xam nga naa nag moom dafa mën a mën a gaase moom ndax moom mii ci biir kasam mi amee jafe-jafe mais teew mi xeex ci biti waaw kooku moom sama xarit boobu moom moom dafa dafa dafa dafa capable moom moom looloo ko dal quoi waaw euh, man it am na bi épisode yi di soog a door ñu ni door door deuxième saison bi man dugal naa fi man leen wan man ñax sa xam nga yaay ñom jox seex yooyu non am nañ mag bu goor seen mag bu goor go waxaguñ kan la de mais nénal ni leen woon est du Birahim Ndiaye waaw ko yu sotti papay maajoor lay doon mo doon mo doon mo doon gu goor ki waaw loolu loolu xalaat na xalaat xalaat bo demee mom non la man na demee non waaw man na man na nekk papay ma man na nekk papay ma waaw ndaxte tam ko Fandiaye Inde bi ñu ko ëmbaloon dafa amoon seex yooyu ñetti seex yi jigéen yooyu damay damay wagal ni papa yi Birahim Ndiaye moo moo ëmbaleen moo ëmbaleen euh, Fandiaye Inde loolu laa xalaate daal mais nag xam nga tam nga lu ci kanam waruti gët dañ bàyyi ci kanam waaye ñu siifu bu baax waaw xam naa ni moom noonu la fay tëddee waaw en cas daal film bi moom amul fa neexawut waaw daal ñu ngi koy siifu waaw baax a baax a baax a baax yàlla baax na nekk leen ci jàmm. Bure sonu pour naa jóg du musa nefe toog wax ak Pape Ibrahima nekk ak yow daal weer naa ko si mën defoon Joof nekk dama lay def il faut nga dem defi test ba yaay xam naa damay defi test wala yaay ju joo ah Gambie ba foofu la mu jeex naa déglu leen ko rek gis nga maajo ak yaama sekkuñu dara musuñoo sekk dara takkoon na ko nag waane yaa ma gën a xam yaa mu see ëmb yaa ma gën a xam te bëgg ko woon bokkuñu baay man loolu lay bañ a dégg yaa ma ak jóor bokkuñu baay ah, man naa leen ko naa leen bu jur di am Père Birahim mën na ko jur wala kon papa Père jur jur naa Jóob waxoon naa fi loolu bàyyi nit ñi duñ bàyyi xel vocal yi passé yi loolu mooy problème bi bila waaye da si am solo lool vocal passé nga dégluwaat ku baax am na solo de barke yenent bi te lu mu wax loolu rek soo xoolee ba ci biir dina am lu ca nekk dëgg billaay affaire bi tey mi ngi nii mi ngi leer nànk nànk ne woon naa leen booy booy su vidéo bi suba lañ ko waxtaan waxtaanee tey la Madior Diop Madior Diop bisu Madior Diop bu fi dugal dara si biir kër bañ waxtaan ko ba pare وسبحانك sijadi bi, wiyan e dugal nden ɗum tan. dogo dugal baɗen tem deɓa bigo indini waxtano nase kiba bal sugal lañ ko warnana waxtane ngir yàlla baare li ngeen def waaye dañoo li def prime amina amul num ne xeew nag waaw asasen daan naat na yama. galmee lañu Tornado mu ngi dooga xam ne joor teewu ko jub xam nga affaire bi daan na naan tey moom mooy loolu daan dëgg neexul.